asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah uh, man la Ousmane Dramé uh, bu la réveil des consciences uh, tey nag damaa jóg parce que sama koñ maanaam sama gox ñoo aaye mu doon élection yoo xam ne ki nga xam ne moom lañ bëgg te am yaakaar ne liñ bëgg moo ko man a faj ñu naan ko Biram Souleye Diop tey moo ma yëkkati moo ma yëkkati yéex naa cee wax de ndax la nga xam ne moom laa bëggoon mu laaj mairie Thiès bi ndax man na ko àttan na ko te xam-xamam matale na ko man nag du ma ci nëbbonte musuma d'accord ci keneen ku moom laaj mairie bi mais nag ay nit buñ àndee parfois la nga bëgg lépp doo ko mën a am moo tax foog nga wàññi ko topp ci nit ñi loolu mooy la ko waral euh, mairie nord Thiès bii mu jël nga ne moo ëmb ngent euh, mairie la boo xam ne yàkkamte woon nañoo am ku mel ne moom ndax lan Birame est un financier Birame ku discipliné la ci administration Birame nit la koo xam ne d'abord am na diine ndax diine lañ soxla ci nit d'abord ndax bu nekkul ci yow confiance du mën a dàcc ci yow te kenn ku ci nekk xam ne surtout waa ngent ni Birame doomu ngent la kër Alaaji mën njëgën da dëkk foofu ku ne xam na ko ndayam fa la soqi ko mu nit koo xam ne dama ne buñ jàppanteeg moom liñ bëgg daanu ko am euh, yàgg nañ ñoo nax nag nun waa ngent euh, nax yu méttee méttee métti yoo xam ne euh, booy ñu gas suul wax jooju seet ban point lañ war a déparé waat pour mën a jóg ànd ak biram jubbanti ngent li nga xam ne nag moom lay ñaan samay dëkkandoo Euh, yéen ñëpp na ngeen jóg na jóg joxante loxo te xam ne politique bi ñu dugal bokkut ak bi fi nekkoon lii fi nekk moom lañ bëgg a soppi aw coppin woo xam ne ñun ñëpp daañu bokk tedd daanu bokk ànd liggéey daanu bokk jëf dëgg daañu bokkit ànd te ay njariñ képp di ci génn euh, biram Souleye euh, nekkul ne dama leen koy ñoox mais nit koo xam ne waxuma la mairie Thiès waaye réew mi mën na koo yor moo yor deuxième position Ousmane Sonko te Ousmane jox ko cër boo xam ne cër bu wér la biram liggéey ci solution livre Ousmane Sonko ko bind euh, mu nit koo xam ne non seulement il est côté de Ousmane Sonko mais à chaque fois buñ ko soxlaa rek buñ ko soxlaa dana jóg dana jóg jàpp ci ba nun waa ngent ñu mën a ne ci jàmm biram xam ne liñ metti biram nit la koo xam ne euh, affaire santé da ko intéressé moo tax liñ njëkk def mooy dem visiter poste santé yooyu nekk ngent mu xool leen recenser leen metti lu coono ba fa nekk euh, poste santé bi nekk sama booru kër bu bët sebbee kenn du fa dem ndox mi day dem ba war na lal yi biram am na projet spécial boo xam ne daf cee war a jóg te man mi aussi danaa ci jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax euh, biram euh, dafa am benn programme boo xam ne programme mu jigéen ñi la muy financer ay projet mu doon projet yoo xam ne dafa naa ne euh, jigéen ñi yàkkamti ngeen ko yàkkamti surtout nag li ma ci gën a neex ci biram mooy école yi école yi ngent yi dafa mel melokaan woo xam ne dama ne yóbbu fa sa doom jaaduwul benn classe téeméeri élève douze yoo xam ne buy jub école yi xet gi dalay rey samay doom fa lañ nekkoon mais ba ma demee ca école ba benn yoon seeti gis directeur bi dugg ci classe yi dem xool toilette yi ci suba sa laa jël samay doom man def ci avion indi leen États-Unis gii bu ma sañoon nag ngent la ñuy toog bon soon ngent la jànge mais nag condition ya école bay dund rafetut duma ko nangu marché yi comment gérer les marchés le marché kooku duñ ko jàngal biram déedéet c'est un financier un architecte financier boo xam ne la muy def xam na ko kon daal sa mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ngent na ngeen bokk jóg terrain de sport yi dana ci taxaw bu baax a baax a baax euh, ngent dafa am centre culturel boo xam ne fa xale yi di express seen self ba mën a xam seen culture ak seen aada ak seen cosaan et puis encore ci école yi programme bi na am nañ ko itam maanaam after school programme after school programme mooy bu xale yi jàngee ba wàcc day toogaat ci école bi am ñeneen ñu leen yor wala étudiants yi ci koñ bi dikk jàpp ci pour xale yi gën a mën a avancer maanaam programme bi dafay yaatu te di ma gën a neex ci biram biram dafa dem ba ca marché ba marché central firi jaay jën dama ne boo fa demee mun la toggalee jën doo ko lekk bu nawet bi dikkee da ngay xuus jigéen ñi ay dàlli dañuy sol ay plastique ci seen dàll yi lu lépp biram teg na ci bëtam kon kan bokk ko jóg surtout sama waa koñ borom boutique yi ñoom Moustapha Ndiaye dama ne waxtaan ak seen clients waa Kër Pa Konté xale yi fa nekk yëpp ñoom Moustapha Konté ak ñëpp daañu génn ak ñoom ma xam xale yëpp daañu génn may soññi mag ñi ak ña fa nekk ñëpp. Euh, may soññi mag yi ngent yi. Euh, ku mel ni Diaby mbay nga xam ne ay relation bi yaatu na euh, ñoo ko soññ bu baax na jóg ànd ak soxnaam yëngal quartier bi dama ne bis la boo xam ne kenn ku ne da nga jóg taxaw ñu dellu di soñ encore nu baax di sama xarit ñu nekkoon fii ci réew mi maga fa nekk ci exercice yu am solo moo woon Africa ñoom ñëpp dal ak sénégalais ba ci sama waa kër jarwaat yi ku ci demee ne Euh, Pape Alla Ndiaye nga xam ne Ousmane Sonko képp lay nooyee ak i rakkam ñoom ñëpp nañ génn bis la boo xam ne daal Ngent dañ ko war a jëlaat defar ko une renaissance une renaissance euh, du ci Ngent renaissance boo xam ne yéen ci seen bopp yéen di ko toog di ko waxtaane di ko waxtaane ba déggoo ci ay point ànd jëf buñ ko defee defe naa ne lu bëree bari dana mën a jaar yoon euh, dafa am lu xew ci Ngent si seetlu leen ko gis nga kanaal bi kanaal boobu nga xam ne moo ne ca ginnaaw sëñ asan kan canal boobu ay milliards yi milliards war na ko mën dugal ci réew mi non seulement opportunité yi mu joxe man nga maanaam surtout ci la pisciculture ci affaire roose dama ne canal boobu képp ku ko topp ak i banaana ba fam ak ay millions yu du jeex la loolu lépp ñu ci xelum biram am beneen affaire bu doy boo xam ne itam ngent boo gasee dix mètres rek am suuf am ndox dix mètres lay booy wàqi am am ndox te am ndox fu mu nekk ay xéewal la te it ZAC bi defar nañ ko jumaa ju mag a nga fa jumaa ju mag joo xam ne daanu mën a jaamu yàlla daañu mën a ànd liggéey da te kat jumaa ji day boo ne ca bi da ngay jàkkaarloog jumaa ji te jumaa ji da lay fàttali diine da lay fàttali dëgg boo naroon ci ay corruption sax mënoo koy jàkkaarloog jumaa ji di ko def kon daal nan bokk jóg bis bi suñ bisa bu kenn sàggan bu kenn sàggan ñëpp nañ taxaw ba su Souleye jël maire bi jëlin bu sell euh, dafa am ñu diiñ nag ñu diiñ euh, nekk ci koñ bi euh, ñooñu aussi ku ci mel ne sëñ Assane ñu ngi koy tàllal loxo bu baax a baax a baax xam naa ne moom ca kanam lay ne ku ci demee ne as njigéen aussi xam naa ne yitteem yëpp na ko bàyyi tant que élection yi jàllut ndax kat soppi dafa jot te coono bi yàgg na kenn ku ci nekk boo jàkkaarloog sa doom sa doom jàkkaarloog yow ngeen togg saabu di ngeen jàkkaarloog complication yi nga xam ne ci li askan yi dund ba tax na kan bokk jóg kan bokk jóg biram su lay ndok ko sax ba mu jëlee mairie kees rek mairie ba mairie nord mairie ngent sax doy na sëkk li tax mu doy sëkk mooy dafa tuuti ci moom ba nga xam ne defe naa ne mën naa di nelaw di ko defar ba tax na kan bokk boole force yi ngent moom dañ ko war a defar te bu soobee yàlla dana defaru ndax am nañ lépp defar ko problème mu espace lañ manqué tuuti problème mu suuf mais am naa yaakaar ne biram am na ci pexe ndox mi doy na sëkk waaw nit ñi xam-xam bi doy na sëkk coono yi képp ñoo yàgg euh, te tar yenn coono yi ndokk ba ne ay jullit gëm ne am nattu la waaye biram a ngi ci yoon bi booti lin biram su lay mu jóg taaw dekkal ngent ba ñëpp ñu mën a dellu nekk ci jàmm bu suñ bët bi mën a xoolaat suñuy doom biram su lay jëkke ci mairie bi mairie noor moo gën mu jëkke présidence ndax duñ tal ndax Sénégal gépp la ëmb waaye biram su bu tàmbali ci ngént gi mu dëkk teg ci mairie Thiès wuti présidence de la république dama ne waa ngent dootu leen ko rëccu kan ànd ak yeewi askan wi nag te jàppale professeur Babacar Diop docteur Babacar Diop nañ ko jàppale mu jël mairie bi moo Ousmane Sonko ànd benn lañ yeewi tinki askan wi benn la dama ne nun waa ngent day pare nañ pare nañ bu baax a lépp lu sotti yàlla xam nañ ko bu wér moo tax ñu sukk di toroxlu dellu di ko ñaan di ko ñaan di ñu bëgg jël suñ doom teg ci kaw mairie bii nga xam ne mairie noor la ba mën a dagg bu mu gàcce yi ba kër yi rusoon mu ruccanti leen xale yi jaaxle woon ñu mu ubbi seeni bopp xale yi nga xam ne amuñu fu jëm surtout xale yu jigéen ñi amul benn benn promotion boo xam ne am nañ ko loolu dafa naturel ci politiciens sénégalais dañuy fàtte xale yu jigéen yi xale yu góor yi képp képp ci lañ jublu ñaari di ci wax te dañ leen di nax bi yoon xale yu jigéen dañoo bokk am ngeen droit demander seeni centre di ci jàng ñaw di ci jàngi létt loolu lépp da ngeen taxaw réclamer ko te ñëw ci maire bi wax seeni soxla bu leen nangu kenn fàtte leen ci ngeen bokk te biram euh, Birame Souleye ci leen boole te xam naa ci li ma wér dama bëggoon nu bokk déglu Birame Souleye mu wax nu un cinquième un cinquième ci li nga xam ne moom la nar ci quartier bi ak li nga xam ne moom la nar ci ngént ak li nga xam ne moom la nar ci mairie bi nga. waaw salaamaaleykum mbokki Thiès Nord eh, fii ñu nekk nii mooy école Petit Thialy école bi nag moom ku ñu wax ni sa doom fi lay jànge eh, war ngaa tiit war ngaa ragal moom xam naa ni du xam-xam lañ fi jàngale c'est plutôt ay feebar lañ fa war a mën a jëlee pour une école publique sénégalaise bu ñu wax ni dañoo war a créer le meilleur sénégalais le meilleur citoyen te ci école lañ koy former loolu nag c'est un constat global parce que ñun gis nañu ni ci commune bu Thiès Nord am na six CM ak dix-huit école élémentaires mais euh, préoccupation fondamentale yi ñu ci am mooy seetlu ni école yi quasiment presque li ci ëpp ñu ngi dox ci système double bu we loolu weesoo tamit euh, solution yi ñu bëgg a ci loolu mooy des constructions en hauteur parce que parfois écoles yi amatuñu possibilité d' extension en largeur ou d' extension en longueur lu mel ni boo demee mat Madina Fall fii am na fa beneen bi mooy y' a pas parce que système double flux bu fekkee dañoo dem ba xalaat construire en hauteur parce que li ñu waroon am possibilité tabax yeneen école amatul ndax les promoteurs immobiliers accompagnés par des autorités ñooy nangu suuf si waroon cee def ay école waroon cee def ay infrastructure scolaire ñu préféré jaay ko pour ay pour ay dëkkuwaay loolu doon na ay préoccupation ñun nag ci biir solution yi nga xamante ne bi gannaaw tabax en hauteur bëgg nañ ko indi bëgg nañu renforcer par des cours maanaam jël ay répétiteurs yoo xamante ni dinañ jëlaat xale yi di leen renforcer ci ay cours bëgg nañu indi comme autre solution euh, les manuels scolaires commencé waat di ko joxe gratuitement en distribuant également euh, cahier yeeg bic yeeg livres yi bëgg nañu en même temps créer benn centre de reprographie maanaam centre de reprographie njëriñam mooy tous les ouvrages scolaires yi nga xam ne dafa yàqu jëru jëriñoowuñ ko amoon na fii dans le cadre d'un projet bu fi existé woon qui n'a jamais débuté d'ailleurs ay jeunes yu ñu formé woon pour ñu liggéey ci loolu municipalité bu Thiès Nord décidé na bu fekkee ñun ñoo falu danañ leen jëlaat indiwaat leen dans le cadre du centre de reprographie nga xam ni examen devoir composition du soxlaati enseignant di laaj parents d'élèves muy cotiser le centre va produire tout ce qui est documentation pour les examens, pour les devoirs et pour les informations nécessaires aux élèves et aux enseignements. donc ci ci woowu li ñu ci bëgg a wax mooy euh, njàng mi qualité bi dafa wàcc donc li ñu bëgg a indaale mooy le culte de l'excellence dañuy jël un comité d'experts composé d'enseignants composé de parents d'élèves composé d'inspecteurs de l'enseignement mais composé également de personnes qu'on aura école bi gën a xarañ jàngalkat bi gën a xarañ wala wala wala wala njàng euh, élève bi nga xamante ni bi moo gën a xarañ ñu jox leen nag ay subvention ak ay bourse ci wàllu woowu pour jàppale leen ci bëgg nañu indiwaat cantine scolaire ndax dañoo seet ni euh, xale yi la pauvreté dafa toll foo xamante ni fii ñëw toog ci école ndekki wala añ ba suur jafe na fu mu toll nii dañoo bëgg dellusiwaat nag loolu ci école bi ñëw dimbali jeunes yi euh, sunu doom yi nga xam te ñoo nekk école yi ñu mën a di di lekk ci biir bi Euh, liñ leen jox ci xam-xam ñu mën koo jëfandikoo. rond-point nag buñ ko waxee ngeen xam ni mooy fi nga xamante ni bii ci biir Thiès mooy stress wu Thiès waay képp ku dëkk ci biir cees boo waree jaar fii sa fit bi sa digg bopp lay taxaw te ñu xam ñun ñëpp ne rond bi mooy rond bi nga xamante ne bii moo ñu war a yóbbu hôpital Saint-Jean de Dieu bu moo ñu war a yóbbu. ci boulevard François Xavier Ndione moo ñu yóbbu ci collège Saint Gabriel Sainte Ursule ak école Daniel Brottier moo ñu a ici yóbbu biir Thialy mais fii boo xoolee ni mu bindoo tey xam ni dañoo am municipalité boo xam ni amuñu benn benn benn vision ci nan lañu ñu war a téye dëkk parce que fii tey boo fi jaaree bëccëg mbedd mi occupé nañ ko occupé boo xam ne ñëpp ñu ngi jaay ci kaw tali bi te boulevard la boo xam ne buñ ko téye woon bu baax defar ko ba mu normal fii ku ne mën na fay jaar ñi fi nekk seen liggéey ñoŋ seen i client am sañ-sañ pour ñëw fii mais jafe na tey nit bëgg fee ñëw képp ku war a jaar fii jaaxle nga fiy jaaree. li ñu bëgg nag mooy indi municipalité boo xam ne bi marché bii fii di rond-point Jaxaaw defar ko defar boo xamante ne bi képp ku fiy jaar di nga xam ni fii bërëb la boo xamante ne bi c'est un endroit qui peut être convivial jekk rafet set. boulevard François Xavier Ndione la municipalité a abandonné ce boulevard la li mu def nii à la limite mën nañ ne c'est du sabotage parce que boulevard bi depuis des années nii la mel boulevard bi mérité na beneen visage parce que boulevard bi cathédrale yi fi nekk structure boulevard bi war na rafet rafetaay boo xamante ne bii ñu def defar ko euh, pavé ko ba nga xamante ni bii suuf du fi am fii jubal jóge fii séq tali bi tali bi jaar noonu jëm Kër Mamadou ji ba yóbbu ko Madina fal loolu lépp ñu war koo mën a pavé mu nekk une continuité du boulevard. Thiès Nord peut être la plus belle commune de Thiès et nous sommes venus pour donner euh, à Thiès le visage bi nga xam ne mooy tax ñu ne Thiès Nord daal moo dàq ci biir commune yi nekk ci biir Euh, ñi ngi fii ci voie de contournement nord bi euh, maire bu Thiès Nord mi ngi nii fii mooy sunu palais Thiès Nord mais amul drapeau waaw lii nag fii boo fi taxawee li lay njëkk naqari mooy fii la maire bi maire fii lay xëy fii lay liggéeyee maanaam liñ koy fay ci indemnité fii la koy jëlee mais xool leen place bii ni mel wa ñuy dugg ci biir jëm ndar jëm awoon yëpp di contourner fii la ñuy jaar xoola place bi ni ñu ko bàyyee ku ko xool lii am nga ci lu la ci naqari li ñu fas yéene bu ñu faloo ci maire bi la première chose et une urgence absolue mooy place bi danañu ko aménager def ko un parcours sportif parce que ñiy jógee ci biir Thiès di ñëw fii bu ngeen seetloo ña ngay yem fële amuñu fitu yegg si fii li ñu fas def nag mooy fii nii danañ ko defar defar ci installation sportive yi war lépp loo xam dina tax nit koo xam ni kii da ngay yëngu ci wàllu tàggat yaram boo ñëwee fii lépp lu ci war nga am ko ci. ñuy rassurer nit ñi nag leen wax ne leen li ci war ci éclairage publique li ci war ci sécurité li ci war ci ay moniteur de sport dinañ teew fii pour lépp lu ci war ñu mën leen ko xamal. fii pour commencer pavage bu mat sëkk lañ ci def ak installation yi ci war pour képp koo xam ne kii yaa ngi ci biir Thiès bëgg a tàggat sa yaram nga mën a jógee ci biir Thiès dox ba fii yemuñu fii sax tey parce que parcours bi dinañ ko dugal ba fii ci yoonu Séniran bi à un kilomètre d'ici parcours bi dina dem ba foofu dellu siwaat maanaam li ñu wax Thiessois yi mooy amuñu municipalité buy liggéey pour ñoom ñun nous sommes venus pour liggéey pour suñuy citoyens chère population thiessoise Je voudrais à travers mes propos vous dire que le moment s'approche de choisir les hommes qui vont tenir pour cinq ans notre destin à main. Alors, je voudrais demander particulièrement à la population de la zone nord d'opérer le bon choix si véritablement nous voulons un changement social. Car vous-même, vous avez constaté que ceux qui sont à la tête de nos collectivités locales ont fini de montrer leurs limites dans la gestion de nos municipalités. Aux amateurs, aux apprentis politiques, de grâce, ne venez pas enfoncer le couteau dans la plaie. Allez vous faire former, car gérer une commune, ce n'est pas une messe à faire. Ce n'est pas dilapider les biens communs, ni moins. Avoir comme seule préoccupation ses intérêts personnels. Nous avons des jeunes compétents qui ont fait leurs preuves dans l'administration centrale au haut niveau et imbu de qualité professionnelle, d'éthique, sans mesure à l'exemple de M. Biram Souley Diop, qui a fini de prouver à toute la population de par son engagement sans distinction de race, de religion, qu'il est digne de confiance. Jeune debout, comme un, comme un seul homme derrière Biram pour un changement radical ce 23 janvier 2022. Ne vous laissez pas divertir par ces prédateurs qui creusent une tombe pour vous enterrer si vous commettez l'erreur de les conduire ou reconduire à la tête de la mairie de la zone nord. Plusieurs années de loyaux services pour le compte de l'État du Sénégal, sans soupçon, sans détournement d'argent public aux impôts. Biram Souley Diop mérite confiance, c'est notre choix. Bonjour habitants de Thiès Nord, je m'appelle Daouda Koundoul et j'ai un immense plaisir de recevoir M. Biram Souley Diop, tête de liste de la coalition Yewi Askanoui pour les élections municipales du 23 janvier 2022 dans la commune de Thiès Nord. Avec lui, nous aurons une série d'échanges sur les points saillants de son programme ambitieux qu'il propose aux Thiessois du Nord. Biram, je vous salue. Salam Daouda, je salue euh, mes colistiers. mes parents et amis, nos supporters euh, au niveau de la commune de Thiès Nord qui participent avec nous euh, au déroulement de cette campagne pour éveiller les citoyens et les aider à faire un bon choix. il y a un point en particulier de ton programme qui mérite une attention particulière. Il s'agit de la prise en charge des lieux de culte. C'est quand même une innovation en la matière. Peux-tu nous détailler cet engagement Daouda, la gestion des cimetières est du des compétences des collectivités locales. La gestion des cimetières est du ressort de la mairie, qui, en vertu des dispositions de l'article 81 du Code général des collectivités territoriales, point 11, est responsable de la création, la désaffectation ou l'agrandissement des cimetières. Alors, nous, nous, le constat que nous avons fait, c'est que notre municipalité passe son temps à faire des lotissements. Des terrains sont vendus et cédés mais jamais dans les lotissements de cimetières ne sont prévus. Et il y a des quartiers au cœur de la commune qui n'ont plus de possibilité d'extension. Je parle du quartier de Kermamelage, je parle du quartier de Kircher, qui n'ont pas de possibilité de s'élargir. Et les cimetières sont devenus pleins. Ce que je dis là, c'est voilà pour les cimetières chrétiens. Et donc, musulmans et chrétiens n'ont plus bientôt de cimetières pour Euh, pour pour porter à terre euh, les êtres chers euh, qui se séparent de nous. Nous avons fait le choix, de travailler dans, pour la création d'un cimetière municipal de Thiès à l'image euh, du cimetière euh, de Yoff. Et dans le cadre de l'intercommunalité, nous avons échangé et discuté avec la commune, le candidat de la commune de Thiès-Ouest, celui de celui de Thiès-Est et celui du candidat de la ville, pour ensemble euh, mettre en place un cimetière commun pour les communes. Parce que euh, on ne peut pas créer un cimetière dans Cramélage parce qu'il n'y en a plus, on ne peut pas créer, etc. Donc, un cimetière commun avec toutes les, toute l'infrastructure nécessaire. Toute l'infrastructure nécessaire, je parle euh, d'un bon zonage, d'une bonne administration du cimetière pour éviter que les situations que nous constatons aujourd'hui euh, puissent être constatées parce qu'il faudra aussi penser qu'en même temps qu'on vit, il nous faut préparer notre, départ de ce monde pour aller dans l'au-delà. apparemment, pour la municipalité, personne ne meurt à Thiès. Voilà pourquoi dans tous les lotissements, ils n'ont pas prévu de cimetière. c'est une désolation, c'est un regret de constater qu'un mandat leur a été confié sur ce sujet-là. Ils ont abandonné les populations. Merci Soleil. Voilà un sujet qui concerne directement la vie des administrés. Cependant, il a toujours été négligé par les politiciens. C'est pourquoi nous voyons souvent du taf Yengel sans projet consistant. Encore une fois, cet engagement ne me surprend pas, venant de toi car nous savons que tu es un Domoudara qui l'assume. Et ça, tous les enseignants et les Nongodara de le savent. En témoignent les concours de lecture du Coran que tu as organisés pendant des années. Chers amis soient Rendez-vous est pris dans les jours à venir pour un autre point du programme de la coalition Yehu Askanvi pour la commune de Thiès-Nord. loolu biram wax yéen ñëpp nga ko xam ñun ñëpp ñoo boo ko xam te it am na leneen lu xew loo xam ne ci police bi biram dana ci jóg gudd bu la ay sàcc fëggee boo téléphoné police duñ dikk duñ dikk kooku waa kees gépp ñu ngi koy naqarlu waaw kees ñu naqarlu kar gi ni kar oto di jël seeni xaalis hmm. loolu it biram dana ci taxaw ñii jël suuf si di ko jaay ak di ko séddoo biram dana ci taxaw yéen xale yu jigéen ñi yéen xale jóg leen am leen fulla biram am na programme spécial pour yéen lii mu wax ci école yi loolu moo am loolu moo am école yi dama ne sa doom bu fay jàngee da tiit man samay doom laa foqar ci jël lépp yóbbu te mënu ma ko waaye dama ko forcer def ngir yàlla jóg leen ngeen voteel Birame Souleye alkaati li doon kar ci tali bi jeex na ñi nekk ci mbedd mi lal ci mbedd mi daañu leen jël wuti leen ay marché am na programme marché boo xam ne biram am na ko marché central du Thiès camion yi oto yi dama nit ñi amuñu fu ñu jaar danga gisu ko gaaree otoom di décharger ay oto taxaw ca ginnaaw di korne bëgg jàll duñ dem waxoon naa leen fi ni jaay jën yi gis ngeen ko lu salte noonu aw ñam waru faa jóge dugg ci gën yi kën jóg kën jóg jàppale Biram Souleye kën jóg ànd voteel docteur Diop bu ko defee waa Pastef taxaw ànd ak coalition bi ñu liggéey Cees te bàyyi ak ñàkk jom ñaanaatu baaxut aw tur idi idi idi idi loolu xewi na nit yi noo bëgg a jóg liggéey idée ko yor idée ko yor musu koo yor biram su lay mee ko yor kay leen jàppale ko ñu defar dëkk bi te kat fàttewuñ leen waa ngent ñoo bëgg alxuraan ngent koñ boo tourné daara nga fa daañu organiser daara yi ba daari yi a dajaloo lépp loo xam ne école publique am nañ ko daare yi am ko ñoom itam wala ñu am lu ko nduru wala ñu am lu mel ne noonu xale taalibe yi dama ne ngénte gépp taalibe la te biram ab dong la woon kon biram toog waxtaan ak sëriñ daara yi ñu ànd jubbanti daara yi loolu du mën a ñàkk. waaw ñu ngi leen jox daje euh, dox daje nag jour élection yi waaw kuy ñëw jàppal ci loxoom nit kooko jàpp ci loxoom nit ngeen ànd ñëw wotal biram Souleye mu jël mairie bi ñu ne ci jàmm ñun waaw man la Ousmane Dramé bu la réveillé conscience dellu wéeru ci yàlla rek. ngir mu suturaal nu te defal lu bëgg mooy jël mairie bii nga xam ne Birame Souleye ko mérité